bismillah demee jaagile ah eh. waa lii lan la Dakar Times de dafa bëgg a xoj Bougane Gueye Dany maar nga xam ne kon moom la ñu jublu boo bëggee dégg-dégg daal xaxar la rek xaxar ak ay gendarme day waaw lañ yónnee démb nag ca demee jaagoogee nen nga xam ne moo nekk seen TV ñaata la ba waaw dama ne la gis nga liquidation gi nga xam ne kon moom la ñu yëkkati ni le daal di caxat-caxate yàqate kon waa demee jaa ah. mbir mi gaa ñaa koy gaawal jéego yu ngand sax ci dogal boo xam ne day lees waxul waxul na ca biir laa la wax te gis nga nag buñu paree ca inventaire googee waaw nangoo matériel bi ci boppam kon foofee la gaa yi jëm ar di tali ya ilaha waaye yow lan moo tax acharnement bi looloo jaaxal ñë Barthélémy Dias ne mënuñoo sacrifier jaxataxatee benn groupe de presse parce que rek yow da ngaa bëgg liquider benn homme politique a ah, yaa bi mag satala Cruz le mandat yéene kaa gis nga coow lii nga xam ne moo dox ci diggante nguuru Sénégal geeg des médias ah, waaw mbir mi weesu na lu gars yi di xalaat de weesu na lu gars yi di xalaat laa la wax direct news de waaye njiital gëm sa bopp gi lé bugaan ngay dani mbaadu day déranger nguur gi di pouvoir bi looloo a ñëpp les fa yéene kaa ne en tout cas benn huissier ay gendarme day waaw la ñuy yónnee démb ca kër ga laa la wax waa des médias ñi ngi naqar lu kon jëf di nu wax ci wàllum impôt bi ah, ah waaw libération yi ne kaa ne xanaa xamoo leen ni gars yi nañ ko juróom-ñaari fan ci weeru octobre bee ñu génn démb nag ñu yónnee waa huissier ak ay gendarme ngir xayma matériel yu dee googe ñaata la toll inventaire ba bu seen TV waaw te gis nga nag boo bëggee dégg dëgg bugaan ngay dani léegi gars yi fanweeri fan lañ ko may maanaam weer 30 jours lañ ko may mu dem fay bu fayulee matériel yu seen bi ci boppam dee média dañu koy nangu allahu akbar la problème ba kay ma nga ca biir justice balaa la wax ubbil enquête yéene kay ne ñu gis nga justice bi lée palais ba ca boppam ñoo leen tënk jàpp leen en mënuñoo dem mënuñoo dikk maar di taali waaw waaw ma loolu ëpp atu yàllaa ngi nii conseil supérieur de la magistrature gi lée réunion wuñ te gis nga conseil supérieur de la magistrature googee waaw xam nga lan la ay teg wax mooy ne gën a gàtt at ne war nañ caa réunion ñaari yoon dégg nga de ay poste yu la googee 24 heures waa ñoo lànk day ñoom Murtada Seck waaw nee na ñu Macky Sall mais xaar pour fal doyen des juges bi la te bu ñuy fal dem nañu fal ndaw jàng nañu compétent nañ les jeunes waaw Macky Sall na bàyyi màggat yi nga xam ne kon dañoo retraité mu leen di fal exemple Mamadou Badio Camara ngi nii te conseil constitutionnel waa kañ la retraité yàgg na Murtada Seck ak ñoom àndal ak ñoo lànk googee waaw nee nañu tukki yi nga xam ne président Macky Sall ko compte rendu am njàmbaarte jàkkaarloo a day ku bëgg a Saleh baa ngay raam le coup d'état rampant de Saleh Mahmoud Saleh ci vox populi ne waa APR ak suñu gàngoor laay waxal gis ngeen candidature Macky Sall ci 2024 bi lée a dépendre ci résultat élection locale 2022 eh waay Samba Mahmoud Saleh waaw si on perd ces élections ce n'est la peine de continuer bu ñu ñàkkee élection locale yi mais jaratul ñuy continuer laa la wax naan Macky Sall yeggale ay projet ak lu résultat élection locale yii mooy ate coow li ci troisième candidature u Macky dégg Mahmoud Saleh wax waa ji yemu ci parce que borom coup d'état rampant am na ci ay opposition yoo xam ne duñu gis lu baax ko wax xas kilifa yi ne yàq réew mi booloo bi ci Sénégal ñu tas ko ñooñu dañ leen a war leen mooy waa yeewi askan wi lé Mahmoud Saleh ne waa yeewee askan wi dañoo war a gas suul leen bu dee nag ay wàllu Sénégal mooy bu ñoo Abdoulaye Wade bi waaw ñooñu sax mën nañ leen a nangu daal wàllu waaw wàllu Sénégal waaye gis nga wàllu Sénégal jooje tas na mar d'Italie laaste parce que Papa Diop day daal dinay gedd na génn na wàllu Sénégal déposé ne tamit caution aw bog sobi li ne Papa Diop day bàyyi na Abdoulaye Wade di dem na de ba nuppi déposé caution critique yéene kaay ne wàllu Sénégal nañ seen caution laa la wax sur coalition yi ci Ndakaaru Njaay jël Jóob waaw capital bee tere nelaw coalition yi laa la wax critique yéene kaa ne Barthélemy Dias par force wala mbong mbong lu critique yéene kaa ne taxaw lalal nañ tapis rouge Barthélemy Dias nee nañ ko yaay suñu candidat waaw parce que commission d'investiture département bu Ndakaaru Njaay jël Jóob nee na soxam war ji nii fii mënoo fee nekk candidat déet ko tijéene soxam war ji ni lañ ko defoon lañ ko defaat nee nañ sa candidature bi mënul jàll ci yeewi politique bu LD kalaame woon na ko recours ba mu dugaloon ngir ñu niilal procès verbal boobee xam ne moo daal di dëggal juróom-benni candidature yu yowee askan wi nañ ko dindi waaw commission d'investiture bi démb génnee nañu ab tontu de xamal Cheikh Gueye ne ko loolu weesu na l'info yéene kaa ne candidat à bu yowee askan wi ci Dakar waaw Barthélémy Dias rof na galgal de Soham Wardini maar de dëbb na ko li njaade Barthélémy Dias kat fi mu nekk ni lée moo jàll parce te waa taxaw Barthélemy Dias mooy seen candidat yéen kaa gi ne mais daw deuxième bi nga xam ni Khalifa Babacar Sall daal dina koy daw moo jur coow li lée diggante Barthélemy Dias ak Soham Wardini l'observateur ne taxaw Sénégal mais bataaral gi nga xam ne moom la Khalifa Sall nekk ni lée mais lii moo doy waar Barthélemy Dias ne déggoo leen ma de fi lée xamal nit ñi carrément ne faj nekkoon tuguñ fa suñu candidature bi amul dellu ginnaaw sur saane waa taxaw Dakar kay Barthélemy Dias lañ tànn de a moom sax APR ñooy farankalaayu di jël koon commune yëpp journaliste bi ne ko Alioune Sall nee na yéen ay xuusma ñàpp ngeen Aïda Sow Diawara ne ko déedéet booleewu ma ci de moom waa parti am lay waxal Alioune Sall xaw ma kan waaye man moom Aïda Sow xam na sama njariñ barki dee moo njaay rek la di ma tagg ministre Mame Mbaye ci direct news waaw nee man dee bis ma falee daf ma maire de Dakar wàllum parparloo gee lii lépp dafiy jeex ak suturaaw décentralisation ak jubbanti gi lée waa waxtaane affaire day seen kuréel gi njaboote jàngalekat ya président Macky Sall wàccee na Youssou Touré maar day taali may mun a xuma si soxo bu parcelle la daal di fal ci yàlla enquête yéene kaay ne Aïda Diallo mu Cheikh Béthio waaw gendarmerie nationale déglu nañ ko démb de l'observateur ne waaye demam nga ca gendarmerie googee dañ ko koo forcé de libération yéene kaay ne coow am na de ci diggante notaire bi la maître Ndeye Li Kaba ak directeur général Global Voice ak marché yu ARTP yi Serigne Niang dama ne leen notaire bi maître Ndeye Lika Ba mooy topp Serigne Niang moomee ngir wàllum njuuj njaaj escroquerie jaxa sooba daal jege na un milliard trois cent la ilaha illallah ay lii dëkk boo xam ne ay milliards rek milliards rek waaye milliards yi ñuy tudd suba ngoon guddeeg bëccëg dee ak lu mu bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari mënta bari bëgg na bari suñu milliards yu pétrole yi la moo tax suul gaz du ko tere xeeñ de te troisième mandat dañ ko fiy tere rek